dal leen ak jàmm ci sunu njëriñ TV fekkee ne gan nga ci seen bi ñu ngi lay ñaan nga abonné bés cloche de notification bi loolu mooy tax vidéo bu ñu dugal nga mën ko am ci saa si jërë ngeen jëf. maa ngi dem waaye li ma gën a ragal sama ginnaaw moo di dem bàyyi fi ay góor jigéen. nee na képp ku ko def rëbb bu yàlla yàlla la yàlla rëbb ba mu ñetti yoon képp koo xam ne kii jëf nga jëfi góor jigéen sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla la yàlla rëbb ba mu ñetti moo tax boroom xam-xam yépp bokk nañ d'accord ci ne ngóor jigéen bokk na ci grande péché yi nga xam ne yàlla du ko jéggale yàllaa ngi wax ci alquran ne atatuuna dukraana min alaalamin ndax da ngeen fi bàyyi góor ñi dangeen fi bàyyi jigéen ñi di dem ci góor ñi bàyyi fi li leen yàlla daganal ci seeni soxna yéen daal yéen a jéggi dayoo yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ñeent a ngi ni ñoo xam ne bu ñu xëyee ñi ngi ci meroom yàlla la ñuy xëy suñu gontoo itam ci sanju yàlla la ñuy xëy ñu laaj ko ko nag kan mu ne jigéen ñi nga xam ne dañuy niir góor ñi nga xam ne dañuy niiru niirulu ay jigéen ak jigéen ñi nga xam ne dañuy niiru nirulu ay góor ak koo xam ne dafay tëdd bàyyi ma ak koo xam ne dafay tëdd góor ne moom mooy luutu yu rek wax itam ne góor waaw mu ne boo demee ci kaso bi waaw da ngay fekk góor ñi góor ñi di sëyante ñu ne bu fekkente ne góor dafa tëdd moom arsu yàlla ga dafay dafay yëngutu ndax ragal meroom maanaa ndax iblis dafa ñëw yàqal kuy jaamu yàlla kiy jaamu yàlla bàyyi ko fi kay nelaw mu di ko upp ñu ne ko waaw kii nelaw nga koy upp nag mu ne kii li buy dee dafay dem safara kii nag fóore la bu yeewoo dana dana defar julli gi kon bu leen ko fontoo dafa nekk farata ñu julli nee na nee na bu ko defee nee na bu fekkente ne góor dafa tëdd moroomu góoram arshu rahmaan nga dafay yëngatu ndax ragal sànju yàlla ak meram bu ko defé asamaan yi fay bëgg fàq di bëgg daanu ci kaw suuf malaaka yu ñoy tey ci cat ya bu ko defé jàng qul huwallahu ahad ba saara wa jeex ndax meru yàlla ma mëna dal jël nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne juróom-ñaara ngi ñi ñoo xamne yàlla daf leen di rëbb te bu yowmal qiyamah itam du leen xool daf daan daf daan leen safara ngi nonu dugg leen ànd ak ñuy dugg te moo koo xam ne dangay tëdd sa moroom bu góor kii def ak ki ñu koy def te mooy liwaat góor jigéen ak koo xam ne dafay jël bàyyi ma di leen sëy ak koo xam ne dafay boole doom ak ndey ja denc leen soxna ak koo xam ne kii dafay foye sakaram ba bànneex di ca bàyyi ko li ñuy tudde masturbation lu dul nga xam ne dañoo tuub dañu tuubee nag yàlla mën na leen a jéggal jëlee nañ ci ibnu abbas radiyallahu mu ne góor jigen bu fekkente ne dee te tuubul suñ ko soule ci bir bambelam dañ koy soppi muy mbam xuux yàlla nañ ci yàlla bolé musal ba noppi wëlbati ko jëme ko sow imam xaafis nee na am na benn man ni ci sahaba yi ño xamne lakkon nañ ño xamne dañ doon def yëfi góor jigen moy sayduna abubakar as siddiq radiyallahu anhu ak sayduna ali ibn abi talib radiyallahu anhu abdullah ibn zubayr ak hisham abdulmalik jële nañ ci abi hurayra radiallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett a ngi nii ñoo xam ne seen baatu laa ilaha yàlla du ko nangu képp koo xam da ngay tëdde sa moroom yow war ca kawam ak kawam ak jigéen joo xam ne dafay tëdde moroomu jigéenam ka nekk ca kaw ak ca suuf ak kilifa goo xam ne dafa jéngu ñett a ngi nii ñoo xam ne seen baatu laa yónent yàlla nee na yónent bi nee yàlla du ko nangu kon aayaat yi nga xam ne mooy tegtale ne góor jigéen dafa xaraam dañ koo sib lu bon la nee na bari na laa ngi wax ne wa luutan id qaala li qawmik yéen luut mi ngi doon wax ak aw nitam ne leen ñaawteef bi gën a bon ci àdduna nga xam ne yéen a ko fi njëkk a sos ci jamono yooyu la am mooy ngóor jigéen yéen ko fi njëkk a indi bi ci tegu itam yu luut yàlla ne mayoon naa ko xam-xamu ma ak xam-xam musaloon naa ko itam ca dëkk ba nga xam ne ña ko dëkke dañ fa daan ña bañ bañ a dencen bañ leen dem di tëddante ci yàlla nee na ñooña ay nit ñu woon ay kàccoor lañu woon ñu génnoon topp lañu waxaat ci alquran ne da ngeen fii bàyyi da ngeen di dem di tëdde góor ñi di fi bàyyi li ma leen bindal man seen boroom ci ay soxna yéen yéen a fekk lu leen sharia daganalal ngeen bàyyi ko fi dem ca la nga xam ne sharia daf leen koo xaraamal te mooy bal antum qawmun aaduun sëriñ bi nee na ngóor jigéen bokk na ci ni ko yonent bi jàngalee solo alayhi wa sallam bokk na ci li muy wàññi dafay indi avertissement la jamono bu xewee ci réew wala ci am pénc wala ci àdduna na la wóor ne avertissement la ci ne yàllaa ngi fas yéene indi ay tiitaange moo xam ci ndox la moo xam ci lakk la moo xam inondation la moo xam bekkoor la ak lu mën a doon la béy ko sëriñ bi nee na li xew ci réew mi yëpp mbënd yeeg yëpp lii rek moo ko waral nee na mi ngi koy gin ci yàlla nee na itam dafay tas yaakaar nee na itam dafay wane jikko ju suufe ak mbon ak ak ñàkk jom ngóor jigéen loolu lay waral nee na itam dana waral ay feebar daf ne dafay dana indi itam ay feebar yu bon yoo xam ne bii docteur du ci man dara ana sida mooy indi sida dafay joxe sida nee na itam dafay tax yërmande yàlla jóg fi merum yàlla wàcc ci sunu kaw dafay tax itam fu ñu toll yàlla di ñu rëbb di ñu solul yërmandeem ak itam duma yoo xam ne du wàcc mukk ki koy def ak kañ koy def ba ca tegu itam ña koy def te itam képp koo xam ne yaa ngi nekk góor jigéen yow mi koy def ak kala koy def seen baatu laa ilaha illallah yàlla du ko nangu te itam tegtal la ci ñàkk kersa ak jëf loo xam ne bi yàlla daf ko tere te itam ka nga xam ne daf koy def allah it nee na dañ koo war a duma ni ñu duma ko weddi yàlla sëriñ bi nee na kon yéen mbokk yi daje bu mel nii du ko bàyyi rek mu jàll lu dul mu waxtaan ak mbokk yi ci xeetu feebar yi nga xam ne ay feebar social la te itam bu ñu jógul ci faj ko ci anam bi gën a mat ak anam bi gën a rafet bañ ko faja doole ànd ak sagesse ak itam waarate bu rafet nee na la muy bàyyi la cay mujj man na nek lo xamni bi kenn duko sant neena moy affaire ngor jigen bi mo waxoon léegi serigne bi neena kon mi ngi baddo posté bi pour fatali len juromi ndenkaane yi nga xamne bayam cheikhul khalifa radiyallahu an daana ko yóbbale muqaddam ak lu yi ci ziyara ak dajje yi nga xamne ne ko fekke mune ne maana bisu khamis la سليمان داو بو تشاكالار مو ziyaar si nee na papaam woo ko ne ko demal nga waxtaan ak ñoom waaye aha sama juróom ñi kat